amateur yi ñu ngi nuyu bu baax a baax di leen ziare. Ah, waaw moom foog naa moom mooy euh, mbër bu ma njëkk xam Sénégal. boo xam ne bii question pertinente la boo xam ne dama ngeen jël. moom lañu wax sa adversaire yaa gën a jekk yaa moom làmb ñaata combat nga def ñaata victoire nga am ak ñaata nga am am na quinze combats seize combats deux défaites. ngeen gis liggéey bu am solo bi ñuy def ci làmb saa su ne nag làmb di leen sargal bi nekkul sargal bu njëkk waaye tey sa frère sa mbokk ki nga bokkal benn kuréel ki nga bëggal loolu làmb moom moo ñëw ngir sargal la tuddee la làmb tuddee la bis Balla Diop lan ñuy wax ci bisu la benn ak wàccaay ak fii nga ñu indi fan mos billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu leen nuyoo kenn ku nekk si turam ak santam di leen di ziare di leen bëggee di wax ne Modou mbay tey fi ngeen agsi fii mooy Gibraltar bokk ci commune ah, bu Médina ñu fekk fi nag kilifa ñu naan ko Pape Diouf bu Rëbës Pape Diouf bu Dakar Plateau Pape Diouf bu Sénégal pourquoi ma ne la Pape Diouf bu Sénégal mooy que ne bi muy nekk. président conseil euh, président des jeunes euh, des jeunes PS boobu yàgg na liggéey nag Abdou juuf ba tey mu liggéey nag ànd ak kalifa Sall ba tey muy ànd ak Barthélemy Dias ba tey ñu ne yeewi askan bi nekk Dakar Plateau fii laa leen indi mooy Papa Diouf moo nekk donc sans wet lépp lu may def ci politique nag moom laa ci àndal. moo taxit bi ñu nee drapeau bi Mourou Baye Fall woo ma ne ma dama lay tuddee drapeau xel mi ma njëkk am moo ko ne delloo ci njukkal Papa Diouf ak suñu maire de Dakar muy Barthélemy Dias. loolu moo waral tey ñi ñëw fii ci këram di ko ziare di nuyu njabootam di nuyu soxnaam di nuyu famem di nuyu képp koo xam ne ne yaa ngi yeewu askan Dakar Plateau Dakar Plateau bàyyiwuñu kenn suñu lumee dañuy juum parce que ñun dañoo bokk biir Dakar Plateau rawatina ñu yëngu ci làmb rawatina nag ñu doon marchand ambulant ñëpp xam ni ci gox bi soo déggee ma ne la marchand ambulant mooy commerçant marchand ambulant mooy boutiquier bi marchand ambulant mooy mécanicien bi di Dakar Plateau marchand ambulant mooy ouvrier bi nekk biir kon ñun foofu lañ bokk di wax ne dal leen jàmm ñi ngi dend ak suñu leader Papa Diouf mu dëkk Rëbës dëkk Dakar Plateau xam lan mooy ndakaaru nag kon pap askan waa ngi noonu mbokki Dakar Plateau ngi noonu mbokki làmba noonu. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di kontaan nag ci ñëw bi ngeen fi ñëw Balla bu bàyyee ñëpp ñëw si ñun loolu day firnde suñu diggante ak moom nit ki nag boo koy xam euh, ci difficulté lañ koo xamee boobu ñu ngi ci ay xat-xat suñu leader xalifa Sall nekk ci kaso mu bàyyi lépp ñëw taxaw ak ñun ànd ak ñun di ñu jàppale di ñu xeexle première fois bi may dugg kër sëñ bi di ànd ak xalifa Sall boobu moom moo ñu teeru foofu ñu dem nekk ci ay difficulté mu ànd ceeg ñun Barthélémy Dias bi mu ñëwee mu ànd ak ñun donc Balla Diop dama bëgg waa Dakar Plateau yépp xam ne nitu valeur la nitu jom la nitu fit la nitu fulla la ak fayda li olof yi nag di wax ne montre yu baax yépp a bokk heure qualité yooyu ñu gis si moom boo ko xoolee di nga ko gis si Barthélemy Dias di nga ko gis si Khalifa saal te loolu ñun noonu la ñu àndee kon ku mel noonu bu ñu ko joxee bës bësam bi dañ koy xëccook moom ñun waa yeewee askan bi dañuy xëccoo Balla bës boobu dañ koy xëccoog moom ndax ku wax Balla wax nga Barthélemy ku wax Balla wax nga Pape Diouf ku wax Balla wax nga yeewee askan bi loolu moom moo fa moo ko fa liggéey te incha allah bu samdee bu bës ba jotee di ngeen gis waa Rëbës gis waa ñaa cokkeer gis waa kaay findiw waa Baraswa waa xook sans fil ku lim mais Dakar Plateau dans son ensemble dinañ ànd ak mag góor jigéen ak xale ñëw topp ci ginnaawam sargal ko dooleel ko pour ñu xam ne Balla dafa am ginnaaw Balla nag dafa am lu mu liggéey ci genes bi parce tey boo xoolee ci actualité bi ñu ngi wax affaire u agression affaire u délinquance suñu toppoon ñu mel ni Balla jóob nii loolu dina fi wàññeeku ndax nit ki li tubaab di wax la nature à horreur du vide ku deful dara di nga uti loo def sport bi nawetaan bi làmb bi écurie yi suñu leen doolelee jàppale leen ba xale yi di am activité yu ñuy def dinañ tal leneen lu dul dal ci kaw ay nit kon Balla Diop bi dañu bëgg gaay ñu xoolaat ko bu baax xam ne du ambulant rek ambulant ak dara la parce que koo xam ne fu écrit am ci plateau mu taxaw fu sport am ci plateau mu taxaw fu jeunes yi dajaloo ci plateau mu taxaw kon kooku dañ ko war a jàppale dooleel ko pour que vraiment jeunes yi mun a taxaw mun a liggéey mu nekkaat beneen référence tey Balla jóg yaa ngi koy tooñ sànq di ko ne booy plateau nga mais booy plateau boo xam ne day xëy di daan dooleem booy plateau boo xam ne day xëy di jënd ak jaay ba am ci teraanga. booy town kon kii référence la. sàccul fenul triandewul mi ngi xëy di daan dooleem uh-huh. am ci teraangam kon ku ko xool tey loolu mooy référence. kon actualité war nañoo xool ci moom. ndax jeune la juddoo plateau mm. gën a nand gaay nekk booy town bàyyi fa lépp di jënd ak a jaay. ba teraanga fekk ko si loolu day won xale yi ne ku nekk li nga nekk rek gëm ko boo ko nekkee rek teraanga mun na la cee fekk waaw donc daal vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant di sant promoteur bi tamit ndax lépp moom la moo ko moo ko sargal sargal ñu ah lebal nga ñu nag di nga xam ne ñun tam mun nañ fayante bor incha allah ki nga sargal nii bokk si ñun dinañ la fay ba wis la jërëjëf. jërëjëf. waaw ñu leen gën a kontaan Modou Mbaye ndaxte lii dafa rëy te maa ngi sant Modou Baye Fall baax boroom xel comme automobile bu ko neexoon tey ni sama bis am na ñeneen ñu ma ko war a jox mais xelam ki mu njëkk a daj déggoo li ma lax Modou Mbaye xelam ki mu njëkk a daj mooy Balla maa ngi ko doon wax kan mooy la moo ko xam moo ko xam li nga bëgg ci bis bi yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal di santaat Papa Diouf ak équipe bi ñuy àndal ndaxte Yewwi Askan Wi kese rëbës équipe la boo ñu gisee ñu ànd ñëpp daanaka magantewuñu moom la ñu jiital nag mu ne suñu kanam te di ko xamal ne politique ñëw ñu ci ngir taxaw du xool dañuy xool askan wi li leen naqari ñu nekk di xeex bu doon nguur rek la ñun dem nañ ci nguur bu yàgg. parce que gis nañ ay proposition bu nekk rawatina man mii di waxee yow moom mii. gis nañ ay proposition bu nekk mais dañuy xool li nga xam ne moom la askan wi di dundu ñu xam ne ñun moom lañuy dund ñu taxaw di ci xeex kon tey jii nañ waa Ndakaar waa Sénégal nañ bàyyi xel. yeewi askan bi te xam ne dañoo ñëw ngir développer waat Sénégal waaw mais du mën a ñàkk du mën a ñàkk ndaxte il faut ñu am mën a ñàkk Modou Mbaye xam nga lu ma tax du xam nga du mën a ñàkk fi ñu fekk la jotaay bi la waa jotaay bi la kon tey nañ ñu bàyyi xel bu baax a baax di wax ne Pape yaa ngi ne suñu kanam bi mais ñu ngi sa ginnaaw soo gëstoo rek ñuy séen saa yi su ne nag ba li ma la doon wax rek nit moom ànd yow mi ñu nekk si kanam da am lu ñu lay référence bu ñu lay xoolee moo tax ñu topp la boo meloon neneen duñu la topp xool nañ ne xam nga fulla am nga feere yaa ngi sa liggéey rëbës kenn yabu la fi Dakar Plateau kenn yabu la fi li nga ki la war a dimbali nit ñi yaa ngi leen dimbali ci li nga man ci social damay fekk foo xam ne dañ naan pap moom ma dimbali nangam pap moo ma defal nangam ay yoon yoon damay dégg di bàyyi xel di bàyyi xel looloo tax ma lay topp da xam ne yow miy jàmbaar nga yow mii ku la jox dëkk bi ku la jox gox bi nga defar ko te incha allah mi ngi suñu kanam yàlla yàlla mottali di sant di gërëm jeune amateur gi ma bokk tamit di leen nuyu sama président Gora bis bi sa bis la ak bépp membre bu nekk biir jeune amateur Modou Mbaye yéen tey maa ngi leen di sant Lamine di sant seen caméraman di la sant Modou Mbaye bu baax a baax ndax ne làmb ji comme li nga wax rek ñun xale yi ñoo ko mën a defaraat nga la waay nañu xoolaat taxawaay bi surtout ma supporters yi dañ bàyyi xel ne kaf agréé la foo la agréé uti nag il faut am ku ñàkk ak ku ñàkk boo ñàkkee tey ba léegi di nga am kon nañ dellu soit xel yi te xam ne ñëwuñu fi pour jaay ngand ngandulu ñëwuñu fi pour dañ fi ñëw pour foo suñu culture la yàlla moo ñu ko nattoo làmb ku nekk li la suñu borom nattoo ñu làmb ji ñu yàlla nattoo dañ koy nangu kon ñi ngi woo amateur yëpp di wax ne le 28 rendez-vous la boo xam ne nii ci biir rendez-vous la ndaxte dafa am amateur bu ñëw doon promoteur am amateur bu ñëw war a indi leneen am amateur boo xam ne dafa ñëw bugg a yokk te ki ñëw bëgg a yokk mooy kan Modou Baye Fall ñu naan ko jaañ ñu bëri jaañ lañ ko xamee mais Modou Baye faal kon moo li ci kanam rawiti bët yàlla nañ yàlla ndam di nuyu sama soxna bu ndaw mënut a ñàkk benn bëggoon fukk mun maa wax ba àggal te du ma ko nuyu de. kon maa ngi nuyu madam naan ko bis baa ngi noonu daal benn bu gën fukk yaa ma gën a xam waa Kër Massar ñëpp. MTOA ñu ngi leen di ziar di leen bëggee écurie Rebeuss gi ma bokk tamit ñëpp maa ngi leen di wax ni ñëw ci bis bi te xam ne ñoo xewle Dakar Plateau xewle Yewwi Askan Wi moo xewle Pape Diouf moo xewle wasalaam. supporters yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare. waaw moom foog naa moom mooy euh, mbër bu mu njëkk xam Sénégal. boo xam ne bii question pertinente la boo xam ne dama ci bëgg yéen ñëw ngay jël. moom lañu moom lañu wax sa adversaire yaa gën a jekk yaa moom làmb. ñaata combat nga def ñaata victoire nga am ak ñaata nga am am naa 15 combat 16 combat. deux défaites.